wax dëgg yàlla Sénégal gépp a mbégte ndax Sadio Mané la da koo mérito quoi même Ballon d'Or bu mag bi mu jox leen nomi sax Sadio Mané moo Sénégal yëpp la Sénégal gépp si kontaan su ma sañoon daal moom loolu lay def moom maa ne mu jóge Liverpool dem xool beneen kër bu gën a mag boobu non parce que Liverpool mooy loolu moom Salah fa nekk te moom Salah déggoo ñu kenn déggoo mu dem équipe boo xam ne si lay gën a mën a gisa boppam Salah moom ku nekk xam na ko Salah boo xoolee seen équipe ni ñuy ni muy ni muy dundee Sadio Mané da xam ne kii am na benn ranking bu am seen diggante ñoom ñaar donte Salah Sadio Mané jàppalewul dara parce que Sadio maane gis nga ni mu mel mais Salah moom naar la ku nekk xam na naar affaire de concurrence yooyu noonu daf ko neex daf koy bëgg ak affaire de jiite loolu nag lay dund saajo maane ba tax tey jii nii ba pare tamit dafa am leneen lu ci am muy égyptiens yi moom instant bii nii jubóowuñ ak Salah mooy coupe d'Afrique bi ni mu demee doon doon xaar coupe su ñoom mu toogee ci huitième de finale loolu tamit daf ci bokkaale ba tax mais pour man daal bu ñëwul tamit daal yàqalul dara ci feet bi et tout neex na macha allah daal. ballon d'or bi nga xam ne duggaat na Sénégal ku ko fi dugaloon El Hadj Ousseynou Diouf deux fois consécutif muy une première en Afrique ballon door am ku ñëw jël ko tegalewaat ko muy El Hadj kon chapeau à yi duñ ko fàtte mukk mais Sadio Mané aussi dañ koy gërëm di ko sant. mooy delluwaat tuuti ci ginnaaw bi mu ñëwee di def euh, testam jàmbaar. bi defee test bi dañ ko dañ ko dañ sélectionné wuñ ko bon ci kaw loolu xëy na xam nga rek ndimbalu suñu borom ak euh, mu ngi noonu seega seega daal di euh, sayar sec ci la woo Madi ne ko am naa fi benn booy boo xam ne vraiment bëggoon naa nga jël ko Madi itam dégg li ko sa waay wax jël saajo Mané kon donc suñu borom préparé woon na ay mbiram tey mën nañ ni génération foot moo fi benn seule équipe boo xam ne am na ballon door nii la mënoon a demee ndax Sadio Mané ku nekk xam na li mu def ci année bi jël Ligue champion jël coupe du monde des clubs meilleur buteur championnat Angleterre xam nga ak li mu def ak fi mu yóbbu Liverpool quoi xam nga lool xam nga gën nañ ko gis si joueur africain depuis ay Samuel Eto'o ay Didier Drogba xam nga moo tax tey bu jëlee ballon door bii nii du ñu bette parce que même ballon d'or européen. bu demee ba taxaw quatrième kon ku nekk xam na ni que euh, ballon d'or africain moom jël na ko te ballon d'or européen bi ñëpp xam nañ ne mu demee normalement moo ko waroon jël mais tey doon dañu jox quatrième position mais kon bon dañuy xam ne kon Sadio Mané moom am na mérite ci ballon d'or bi nii. di ko ñaanalaat nag mu def comme ñoom Lionel Messi ay Cristiano Ronaldo di ko triplé di ko tegale di ko tegale jël ay ballon d'or yu bari daal waaye kontaan nañ trop ci moom macha allah. fi mu tegoon tànkam ba léegi bi mu nekkee xale foofu la nekk chaque chaque année day gën a jug day gën a évoluer xam ne li mu bëgg te xam ne fi mu jëm ko gannaaw loolu te man li tax it ma gënoo bu ma amee lu ma koy gën a wax mooy yar bi mu am ba nit ñëpp nawloo ko doo ko gis fenn saa yoo maa kenn mënul dox ba gis photo boo xam ne danga naa saa yoo maa fii la nekk wala fii ak fii te loolu ko xamul li nga bëgg nekkoo ko jàmbaar mënoo ko def te mu nekk jeune am na xaalis mënoon a nekk comme yeneen yeneen di fo wala leneen leneen mais gëm na boppam

beneen bi ci topp mooy éducation dafa baax ci loo mën a gis te maa ngi ñaanal Sadio Mané mu am trois ballons d'or te balaa muy pare ci ballon d'or yi mu jëlal ñu coupe d'Afrique parce que aussi Sénégal soxla na coupe d'Afrique te talent baa fi war nañ commencer nag di jàppale nit ñi pour Sénégal avancer mais pas pour politique ak ngistal loolu moom war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a Sénégal yëpp ñu ci ginnaawam ñun luñ koy ñaanal mooy que li mu nekkee nii ma mu raw ay maasam fu mu bañ parce que gis nañ ko performance yu mu def mi ngi avancé mi ngi dem man la mu koy ñaan du fond du cœur quoi parce que mu du dara doomu Sénégal la fier Sénégal la te man lu ma si gën a neex mooy muy boot sama dëkk quoi man suy casase saa yi maa ne ndebi baa diwante quoi dem ma ne ko diwante ko tandi yema ne ko yema ne ko nun beetule sewo mbe mbe mbe doa kafula mbe doa police tay ñaato i ka kuma min ke i ka fɛn fɛn o fɛn min i k'a kɛ pour nde jimala mbe kunsi kana santa parce que ite ah, la ite la ke quoi mbe do akafulo bake bake ba mba fe ko tak nte abla nte mi badu ngolti ama mi mi la fanso ti nga kelo kelo ko la kumbote le ko la nga ko be kelo ko la xar ko ti telam quoi ha ñancho parce que mba fa le ko ti mu jatwalti coupe d'Afrique de woon nag nañ fexe mu ñëw incha allah incha allah loolu lañ soxla coupe bi. kon yéen gëm ngeen ne coupe d'Afrique dina fi ñëw. daa war a ñëw da lay ñëw. daa jotagul loolu moo ci des di. daa jotagul.